waaw mbokki assalamu alaykum nañ ci wax lu gatt dama waxone dama waxone candidat basirou Diomaye fay nek que ñu ci sanni kaddu parce que ñu wara dem beuri na ta temps bi gatt na te xamna ni comprendre ngeen ñu waye xamna ni kenn ku nek ci yeen namoon lañu wax ak mom touti mo tax sori est wax ci ministère de l'intérieur nga xam responsabilité sécurité candidat bu campagne électorale ñu campagne xam nañu ay pexe yoo xam ne ñu koy laal diggante Sédhiou ak Kolda ngir fas yéene dañuy attaqué suñuy caravane commencé woon na fii ngeen gis ko nii ba police ngi doog a ñëw li ci biir kër gi xam ngeen ñan la ay waaye ma bëgg a wax sénégalais yëpp nag que ñun on est en campagne électorale on va à la wax leen suñu programme songuñu kenn dóoruñu kenn xeexuñu ak kenn waaye nag ku daal suñu kaw am nañu droit défendre u loolu loolu dañ ko yàgg wax ba tax nag yéen la jeunesse sénégalaise ñu neeruñu ay milliards yu recruter ay maire ñun yoruñu ay milliards eh, déedéet eh, eh. eh, eh jeunes yem leen ñii dañuy def seen liggéey ils pour la sécurité su ngeen leen tàcciwul bu leen leen yóbbu c'est leur travail. dama wax ni ñun yoruñu ay milliards yu ñuy recruter ay nervi pour ñu dem xeex yi. Moi, nous avons le ëpp moi nous avons la jeunesse sénégalaise et le, le premier responsable de la sécurité de la caravane Diomaye président moi bërëb bu dem les milliers de jeunes qui nous suivent viennent les premiers responsables de la sécurité de cette caravane kon may wax rek le ministre de l'intérieur ndax caravane bi amaana mu mun a caravane suñu waajooju fii ak caravane. du lu ñu calculer du lu ñu du lu ñu programmer en 2019 man mii daje naa ak candidat Macky Sall biir Ziguinchor muy sama dëkk dóorantewuñu saagantewuñu kenn attaqué wu ko fa ku nekk def na lim mu war a def continuer kon loolu mooy campagne électorale la ca des nag moo wax ak yéen waa Sédhiou président Bassirou Diomaye dama ko waxoon ni bul tudd kenn bëggul am na kan mooy kenn bëggul mooy koo xam ne ñi ko tànnoon def ko candidat sax bëgguñu ko. président Diomaye sera président de la république incha allah fii ak bii di ñëw semaine moo ci def. Président Diomaye c'est un homme réfléchi et structuré xam-xam lay wax moo tax ma ne ko foo dem jukkil ci sa programme nga ko gars yi politique bi nag bàyyi ko mbaa gaa yi xamante nañu ndax ñoo ngi lappi lappi ne dañ may attaqué waaye man mënatuñu wax lu ñu waxul ci man c'est fini mënuñu wax loo xam ne waxuñu ko ci man te wax nañu ba seen gémmiñ ñi tokki te tey laa gën a ci Sénégal président Bassirou Diomaye borom xam-xam la nit ku tey la nit ku dal la mënuñu am président bu gën boobu fi ñu toll nii. moo tax ma ne ko nekkal à la hauteur du futur président de la République dans une semaine incha allah ñun dinañ def le moo tax waa jooju pareegu ma ak moom commencé bu sax bay pare mais tey du wax mbiram fii

même caravane bi lañ defoon ba egsi fi ñu ñëw jox ñu majorité ci élection législative ngeen am ngeen am sen doom muy Mohamed ayb dafé du ma wax Sédhiou de waaye Sénégal yëpp lay wax est-ce que Mohamed ayb dafé mi taxaway bi mu taxawé assemblée est-ce que décevoir na leen décevoir na leen kon xam ngeen ni moom c'est c'est l'incarnation du projet même Mohamed Aïm Dafé taxawee na taxaw boo xam ne ba doy ma man ma jël ko def ko sama mandat mandataire pour élection présidentielle kon yéen waa Sédhiou liggéey boobu nga xam ne démarré nañ ko te yéen Sédhiou ngeen jox ñu majorité bii ci élection législative moom la ñu war a yeggali dimanche prochain est-ce que Sédhiou mën na def lu wuuteeg li mu defoon lu ñu war a laaj kay mooy Sédhiou dafa war a doubler tax liñ fi bëgg ci Sédhiou moy numu mu tuuti 65 numu cent nu 65 au soir du dimanche 24 mars 2024 inshallah kon yoon bi gudduna yoon bi gudduna waa xam ngeen 100 pour cent dafa xawul méngoog démocratie nañ leen bàyyil tuuti kon nañ ko def 85 nañ leen jox 85 pour cent jox leen ko président Bassirou Diomaye Faye ma garanti leen ne nag à partir de dimanche boobu incha allah ce sera le début changement véritable du changement structurel sàcc alal réew mi jeex bi jël réew mi tey na ko waa bitim réew jeex bi alal réew mi ñu tey ko ci réew mi. séddale ko de manière juste et équitable kenn ku nekk ci li ciy nga mu jot ko c'est ça le projet Pastef kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant xam naa ni namoon ngeen ñu waaye ñoo leen raw kon waa Sédhiou namoon naa leen namoon naa leen namoon naa leen asalaamaaleykum closes